Gris lay wax si remise loo bi remise loo bi Pape dama def Thank you.

डोमिनोज इसमें फिर ग्रिड है इसमें फिर फर्जा इसमें फिर लग लबरोज दर्शन पापडोई दर्शन लाए समय भी मौसम है फरीजेंगो waaw gis nga bu mag bi. non 100 pour cent. 100 pour cent parce que bi nga toll woon. Mhm. ci soog boobu di ko woo. waaw non dimension boobu ku fa toll di woo sëñ Babacar rek taal bi pire la. pire. di Vatandaşlık. E eu que parce que ku nekk ci làmb ci ay morom war a bëri ñoom dañ leen di mais mais victoire bu solo la am ci carrière am. waaw waaw moom moom moom ci yoon mi. grand champion la dafa nekk ci làmb. gëj a daanu ñu koy ñu koy ñu koy félicité lu yàgg bëriwul. waaw parce que gars dañuy bëgg gën a nooyee rek. dafay la làmb ji amul lu nooy ñooy jox mais Ama Sène Junior foo jëm fan nga jëm léegi. ngay jooy. di leen jëm ne waa Jalaw. Serigne Ndiaye 2 Serigne Ndiaye foo jëm léegi. à chaque fois ñuy def ci liggéey je donne l'exemple de Serigne Ndiaye loolu yàgg bëriwul boo ko yóbbul avance am mun na day xaar parce que c' est un danger pour gars yi pour gars yi pour gars yi nekk suuf je te donne l'exemple de Forza mi surtout waa Ndiaffate. waa Ndiaffate sama nijaay sama mère dëkk. ah ma si fay quoi père. waaw li ngeen di tey macha allah. Ah, jërëjëf. Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye foo jëm léegi fan nga jëm Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye foo jëm léegi Serigne Ndiaye et Serigne fan nga jëm léegi ah waaw dëgg la mais tey yow waa ji da nga ko duma daan ko. waaw mais sant yàlla rek. waaw di ko remercier nag bu baax ak moom sant yàlla. waaw laaj na am courage boobu jël ko. Ah, dëgg la mais léegi foo jëm mon frère. Comment tu as trouvé le combat aujourd'hui C'est très, très sympa aussi. Il y a beaucoup de chaos et là c'est bien. C'est extraordinaire. Hey, eh, Ibrahim Bailly, tu as eu la victoire. Gayu, grande a Pravi Parvi. père lay wax sa doom bi. waaw ah, kontaan rek. kontaan na trop parce que am sa doom bu dëggal la. waaw am na loolu mbégte la quoi. dëgg la waaw am naa mbégte trop. waaw léegi fan la jëm. ah mais su bëri mag rek. léegi fu mu jëm su bëri mag rek. waaw bàyyiwuñu kenn. comme kan. ah xam nga lu ma mën. waaw moom mooy choisir. Ah. mais nag bu doon sama soxla am na ñaari waajur. waaw nga xamay chance rek. nga may chance rek nga may chance parce que mbër la wala na ko. wala na ko mën a sëb wala na ko mën a dóor. dëgg la waaw yàlla ko yàlla dafa jàmm rek yaa ma si gën a cat. jërëjëf waaw maa ngi gërëm maneer yëpp nag di gërëm pêcheurs yëpp di waa dëkk yëpp di gërëm waa Dakar yëpp di sant ñëpp di sant Cheikh Ba Seydou Gueye maa ngi sant ñëpp merci beaucoup